salaamaaleykum bokk internet Ajum TV ñi nga am bekti ak contentement bu baax baax dafa melni ñi ñu ngi jàkkaarloog ak monsieur Seck monsieur Seck ñi ngi lay nuyu bu baax baax. ça va ma ngi leen di fay ma ngi leen di fay di leen nuyu di leen nuyu lu bare bare bëri kon ak kontaante si ñëw seen teewaay ah li de kontaan nañ ci wax deug yalla ok. Euh, tay ji ni gis nañu entraînement yi lan nga représenter ci bir salle bi nga xamanteni mo moo nekk fii nii ci Borolan. Ah? waaw li ma représenté man maay Ibrahim Khalil Sek ma ngi dekk Morolan limay may ci salle bi man maay euh, porte parole salle bi Ibrahim Khalil Sek wallahi représenter tay ji ni en tant que porte parole say euh, élèves mën nañ nek mën nañ ñoo wax ni ñom ñoo nek di def seen ay entraînement tay ji ni ban yeg yeg nga am wala. wa yeg yeg bima am moy contente contente rek contente ci salle bi ak no xamanteni nañ koy defé waa dëgg yàlla moom kontaan rek xale yi moom wóolu naa leen ndax depuis booba léegi moom bañ ci nekkee ñu ngi ci waaw. tey jii nii est-ce que mën nañoo xam Ibrahima avant moo nekk porte parole moom dafa jànge lii nga xamante ni mooy entraînement bi nga xamante ni mooy karaté. mën nañoo xam ndax Mont Rolland nga ko jàngee wala fan nga ko jàngee. merci loolu de dinaa ci sawar a tontu ndax karaté man fii laa ko tàmbalee ndax mun naa ne amoon naa benn maître monsieur Ari fi la newon mom moñ doon jangal mu dem dem ba ben instant ma arrêté mais ma ñëwaat sama grand frère Mor Seck fi nekkon géré CM bi yag na ci trop nek mu nekk te tout pour rien que rek karaté pour karaté moral naa dem kanam ma jëw fa nekk ak mom nekk ak mom ba ben instant ma dem au niveau du refisque ma dem fa ben club karaté bu tuddu fast nante bu refisque ma nekk fa ben année après si laa ñëwaat morona bu mu ñëwaaté morona nek bo ba léegi maa ngi fi wa bu mu ñëwé sama sensei Fall nga ngi fi sensei Fall momu yorat Mor sek momu yorat dans des années après Fall mi momu yor dapi daw daw jek après Fall njaay mu ngi fi encore mais dal kontaan nañ ci karata bi dal mu ngi karaata Morolan daal ñu ngi si ok. d'accord tay ji ni mën nañu xam yow ban année nga dugg ci biir karata bi. wa karata bi danaka man yag na ci dugg yag na ci dugg waye daanaka léeg-léeg samay liggéey mooy occupé damay occupé de trop ba benn instant ma xawoon ak kii mais amoon na moment même Mor Seck ba mu fi nekk maître fay mu ngi woon fii au niveau du Luxus maître fay aadama fay mu ngi fii moo ñu yoroon encore dans les camps mais après benn instant mu dem ba yaram bi xaw a tawat mais si moom si la xawoon a éloigné mais moom yàgg naa cee dugg depuis ça des années ça fait des années waaw mais moom. réglementé wul comme ni mu kii woon mais dans dans les camps depuis deux mille vingt vingt vingt et un si laa gënoon a avancé daal ok merci. kon léegi depuis ba nga duggee ci salle karaté ba léegi est-ce que am nga ay euh, kii am rango nga ay ay kii yoo xamante ni yaa moom. ay diplôme waaw daanaka amaguñu ay diplôme salle bi au niveau du Morona def ba ba léegi ñu ngi fi ñu ngi doon laaj ku ñuy jàppale boo gisee nag. waa dëgg yàlla monsieur maire def na ci def na ci pourcentage am avancement avancement bi nag ñu ngi ciy door a jot daanaka affiliation bi euh, léegi mu génn pour salle bi mun a activer wu au niveau du Sénégal base euh, euh, fédération léegi nag ñun nag ñoo ngi suñuy diplôme comme que ni amu amuñu diplôme pour dem ci kii bi waaye am nañu ay passeport yi génn na comme noo xamante ne kon salle bi mu ngi def ay jéego pour avancer. kon nag monsieur le maire waa dëgg yàlla ngàcce ngalaama lañ ciy wax jàpp na ci monsieur le maire Yves Lamine ak madame de vice présidente euh, Fatou Ciss wax dëgg yàlla jàpp nañ ci jàpp nañ ci lu bari wax dëgg yàlla moom avancement yi ñu ci jot a am avancement moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy am mais nag bëgg nañu au niveau du Morolan au niveau du Morolan bëgg nañu Morolan am base base sportive ko boo xamante ni ka lieu boo xamante ni Morolan moo ciy taxaw Morla mooy taxaw ñu xam ni carrément salle souvent ñu am fa salle karaté ou bien base boxe ou bien base euh, conf ay judo yooyu yëpp mu ngi war naa mën a nekk biir Morla mais nag mais monsieur le maire daal ñu ngi ko ciy woo ñu ngi ko ciy woo pour noo xamante ne rek mu jàppaleñ ci euh, voilà salbi comme ni nga ko waxee yaakaar naa ne su ma baax ci ci say cadeau dafa melni ni yag bi na fi legi salbi bi da ngeen ko yemalé ci commune monolan wala yenen commune ci lañ bokku waaw waaw waaw ñun ba téyewuñu kenn ko paré pour ñëw rek pour bokk ci salbi rek ñun adhéré nañ la mais am no ñëwee rek par respect discipline moñ fi moo taxa tok fi respect discipline amul len xamul mën a gis ñuy def ay kii ay nangam naan ndey ni ñu rey wala dañuy dóore déedéet noonu discipline rek moo ñu fi indi ñëpp commune yëpp fii commune Noto mu ngi fi commune Morlan mu ngi fi suñuy maîtres yi Noto lañ dëkk kon nag yaakaar naa ni amuñu benn kii ñun daal ubbi nañu bunt yëpp pour képp koo xamante ne pare na pour bokk rek boo ñëwee daal ñu wax la suñu réglement ñu teg suñu article nga xam lii la nga dund ak ñoom ngi nii taxaw ak euh, Santhie Fall moom mi nga xamante ni mooy entraîné xale yi fii nii ci saalu karaté bu Morolan monsieur Fall nuyu nañ la bu baax. waaw ñu leen di fay di am mbégte bu baax ci seet si bi ngeen ñu seet si tey euh, vraiment am nañ ci kontaan bu baax ndax euh, boo nekkee ci béréb bi mel ni di ci liggéey ci roq sax mën naa ni ndax xam nga Morolan dëgg la siiw na mais ñu bëree bëri xamuñu ni am na fi. voilà kon su yàlla defee tey ngeen ñu seet si dañ ci am mbégte daal di leen fay nuyoo bu baax a baax di nuyu nag. képp kuy karateka Sénégal rek ñu leen di jaajëfu den wax us tey jii nii ñu ngi fii nii amoon mont euh, ñu lay laaj sa saalu karaté bi nan lay fonctionner. waaw salle bi moom ni fonctionner comme ni salle Sénégal yëpp di fonctionner ah voilà salle bi Mont-Lan euh, léegi euh, doon nañ débuté nag doo métti woon na trop parce que amuloon ay kayit. xam nga ñu doon taxale yaa ma gën a xam mais dem nañ ba benn instant wax dëgg yàlla liggéey nañ ak booy li ñu war liggéey ak ñoom wàllu këyit tamit vraiment wutal leen ko ay këyit yu valable xam ne bokk na daal ci dossier yi nga xamante ni dossier bi moom gënu koo valable voilà mi ngi ak seen i document normal te xam nga souvent loolu tamit day tax ñun ñiy jàngalee ñu am fit ci li ñuy def ndax xam nga saalu clando baaxul te saalu clando mooy saal bi nga xamante ni mi ngi dox te amul këyit mais Morolan moom dëgg yàlla ba mu amee ay léegi dañoo gën a ñemee xam fi ni teg suñu tànk bu baax a baax Euh, xam nga rek nekk xale yombul mais macha allah tamit xale yi dëgg yàlla suñuy xarit leen gis nga bi ngeen ñëwee fii gis nga ni may fowee ak ñoom noonu laa mel ñoom mais ñoom itam ñu joxe cër trop neex a àndal voilà xale yu yaru en tout cas daal entraînement yi moom ñu ngi ci kawam karaté nag yombul ndax karaté dañuy wax ni da ngay ñàkk ak ñuqi maanaam da ngay fay ak di sonn boo sonnee ak joxe yàlla mën naa def li ngay certificat di nga ko gis quoi te ñoo ngi ci loolu te xam naa ni comme li ñu préparé nii muy euh, démonstration bi ñu préparé quinzième jours après tabaski incha allah euh, ñu ngi ciy invité salle yu bëree bëri euh, lu mel ni Noto Guy Joma da cee war a ñëw saalu Kayar Kayar am na ñaari salle yooyu dana war a ñëw Kër Mbir Ndaw aussi am na doso day ñëw Mbijëm am na doso day ñëw Kër Malal am na doso day ñëw ak saalu Ndiop Saw voilà saal yëpp bëgg nañ daal ñu ñëw teew jëmmal bis bi nga xamante ni moom la am parce que boobu rek leen mën a mooy bis bi nga xamante ni bis gu gën a rëy ci sunu allah. tey jii nii mën nañoo xam ndax saalu Morolan yu fekk ngay jógee Noto chaque jour di ñëw fii ndax yi ñoom dañuy fay wala salle bi gratuite la. Euh, élèves na dañuy fay moom élèves dañuy fay par euh, chaque élève day fay par weer suñu dajalee mensualité bi après ñu jox ma bon xañ na début bi bi nag metti woon na. parce que xam nga ngay dagg sa temps taal sa oto ñëw de entraîner dem ñibbi euh, dara gën ko metti ndax peut-être am na yeneen temps ba yeneen job yi ma bloqué sax à cause ñoom mais arbitre dafa nekk suñu deret dañ ko bëgg bëgg boo xamante ni suñu ñëwee fekk xale yi mobilisé wu comme nii ni dañ ko bëgg rek ñu def lu jàppale leen te wu dëgg yàlla comme ci cër bi nga xamante ne am nañ ko suñu diggante ak ñoom dañuy jaral ñu dagg suñu lépp ñëw pour jàppale leen. nuyu nañ la bu baax a waa ñu ngi leen di fay a baax. Euh, di leen jaajëfal bu baax di rafetlu aussi yéen seen teewaay bu baax a baax tey euh, ci biir euh, Morlan Karaté Club waaw di leen wax ni daal leen ak jàmm daal biir Morlan Karaté Club voilà. tey jii nii mën nañu xam Cheikh Tidiane lan la représenté ci biir Morlan Karaté Club. waa Morlan Karaté Club de yàlla def na ni man maay actuel ni président bi depuis 2019 ba léegi. yàlla dénk nañ que ni ñu ñooy euh, président Morolan Karaté Club waaw di ci dox nag lépp loo xamante ne aussi rôle président la uniquement rek euh, ndax euh, Morolan daal karatéem gën a évoluer si lu bëri daal voilà. mu ngi mel ni yéen commencé ngeen karaté bi sànq am na ku ma ko wax ni ko yàgg na tey jii nii dem nañ ba Saalum Morolan karaté club yaa nekk président bi te mi ngi mel ni ñi ngi jublu si tabaski te daa mel ni am ngeen si programme sin programme bi naka lay tëddee. waa comme ni nga ko waxee rek euh, Morolan Karaté Club moom euh, yàgg na fi yàgg na fi yàggaay boo xamante ne sax ñun euh, dañu dañu ñëw rek fekk ka fi depuis boobu ba léegi nag yàlla mu ngi def ñuy dox di dox di dox ba yàlla def ñu ñun ñu doon président bi salle bi nekkoon ci ay difficultés yoo xamante ne daal metti woon na lool yàlla dem ba tey jii nii lépp sotti. la nga xamante ne war na bépp euh, salle karateka ñu am ko muy que ni am nañ suñu ay passeport am suñu affiliation am suñu lépp loo xamante ne tey jii ni war na bépp euh, salle karaté tey jii nag euh, li tax ñu taxaw organiser benn programme boo xamante ne def ko journée arts martiaux biir Mont-Rolland mooy que ni dañoo dem ba am loo xamante ne tey nii légal na muy ay papier yoo xamante ne valable na ak ay passeport yoo xamante ne war na karateka moo taxoon tey jii nii ñu toog ñu ne comme demee na noonu ñu jéem a def le tout ba inauguré suñu salle ñu xam ne carrément ne am na benn salle boo xamante mu ngi zone Thiès mu ngi tudd Mourala Kara de Club te pare nañu tey euh, wane seen bopp moo tax ñu bëgg def organiser benn programme boo xamante ne woo képp koo xamante ne doon ah, yaa ngi def aar nest nga ñëw jàppale ñu si jour boobu noonu te jàpp nañ que quinzième jour après tabaski daal ñu bëgg inauguré suñu salle daal incha allah. waaw programme bi jàpp nañ ko fii Morlan Morlan bi fii lañ ko jàpp euh, ci ancien maire bi face ancien maire bi waaw di wax ni teyit euh, programme bi bi nga koy jàpp lu tout dañ am autorisation maire waaw ndaxte maire euh, monsieur le maire Yves Lamine Ciss def na tout jàppale nañu si lépp loo xamante ne daal ñu ngi ciy jub ñu ñu ngi ciy jublu daal si biir programme bi daal moom moo ñu gën a may euh, faveur boo xamante pour que ñu gën a a organiser programme bi daal waaw jàppee nañ que incha allah rabbi en face euh, ancien maire Morolan bi daal waaw. tey jii nii ñan ngay woo ci programme boobu. waaw ñun de ñu ngi woo képp koo xamante ne yaa karaté di dundu yenen aare encore muy vadeveu beeg muy kënifu muy. taekwondo beeg muy lépp daal loo xamante ni daal doon na aar daal ñu ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuñu képp koo xamante ne aussi téyit askanu ndut nga ñu ngi ñaan euh, képp koo xamante ne yaa ngi yeewoo biir biir ndut ñu ngi lay woo si jour yi nga ñëw jàppale ñu si programme bi ndaxte euh, Karaté évoluer biir Morolan te ñun ñun ñëpp suñu ndam la daal Karaté évoluer biir Morolan ñun ñëpp suñu ndam la xamante ne daal mosuñu ko mu foogewuñ ko daal biir biir biir Sénégal daal ci Karaté voilà tey jii nii sa dernier mot si agent TV ak seeni ay entraînement ak seeni programme looy wax sa élève tey jii nii sa dernier moom waa di wax ne rek euh, euh, comme waa AGM TV tey ñu ngi rafet lu baax a baax seen teewaay di gën a féliciter encore seen président bu baax baax mooy Ibrahima Ciss waaw gis nañ tey taxawaay bu baax a baax li ñuy gën a yokku élèves yi mooy que ne rek euh, ñu gëm ni carrément que ni nga xamante ne si la nekk nii doonul loo xamante ni dañu xëy xëy rek fekk ko suñu yaram. waaw doon na loo xamante ni euh, nga xëy ko bëgg ko téye pour man téye da ci war a mën a dala war mën a jaral lu ne loo xamante yow bëgg nga ko cee am di ñaan élèves yi képp koo xamante ne doon nga élève euh, biir Morolan ak feneen fu foo xamante ni doonul Morolan ñu ngi lay ñaan nga yëngatu ci aar nga gën a yokk bu baax a baax te xam ne kat affaire bi doonul loo xamante ni euh, lu lu luy niil la daal luy nii la doon loo xamante ni luy nii la